jërë ngeen jëf mënum lëmmu gi Macky Sall doon doxee l'observateur ne nañu génnaat na ca ca ndajem conseil des ministres gi ñu doon def démb ci àllarba ji fa yéene ju moom président ci delloosiwaat poste premier ministre bi mu fi dindee li tax mu jël dogalub delloosi premier ministre ci réew mi l'observateur ne nañu am na ay source yu leen xamal ne mooy fast track di wasa wasa gi mu bëggoon yoreen réew mi doxe ko moo amul li am moo bi jëm ci def yu jooyandi ak i coppite ngir delloosi premier ministre bi fi Macky Sall sukkandiku ba ne moo tax mu bëggoo delloosi soleil national delloosi na ci ci njëkk ci mu njëkku les échos wax jànga fa li bi bind moo di Macky Sall dekkalaat na poste premier ministre bi mu fi gasoon ba mu dolli ñu ci ne union africaine gi ñu ko war a dénk mooy dëgg-dëgg ilay delloosi premier ministre le quotidien ñu ne ko ba aw yoonu loola ji moo taxit ma nga cee bëgg a génnaat ba set wecc jëf ji ak defin wi la a gis ci nit ku teg benn jéego jëm ca kanam ba nuppi tegaat ñaari jéego dellu gannaaw moo fi jëloon postu premier ministre ci coobarey boppam fanweeri weer ginnaaw bi mu ne da koy delloo moom Macky ak ni mu doxale ci yëf yi suur soit ni mu ko jàppe moo di gaal gu réer ci digg géej xamul fu mu jëm di wëndeelu Guy Marius Sagna di ko dëggal ci Vox Populi ba di fa a tañax populi ma nga ñu koy leeralal enquête dina kay nañu li ko waral du dara lu ba xam ne ci yeneeni projet ay projet lañu yoo xam ne demuñu cëng dikk ñu mbaylaar avancé wuñu leneen li ci enquête dina kay gis moo di Macky ak li mu nekk ku jóg mbaa lu jóg jote ci moom bu amaate ab premier ministre bu dakkulit dina wàññeeku enquête dina kay nañu mooy kan mooy doon doon premier ministre bu bees bi Macky ak waa këram dañu ma bëggoon a kàdduy Ousmane Sonko la ci xët mu njëkk journal la mandat ubbil yéenekaay bi moom jiital parti Pastef démb ba muy conférence de presse fa la ko waxee wax ne keroog ba ñu ma wooloo tribunal may wuy ji ñetti fan ci weeru mars 2021 dañoo sama convoi fitna juddu ca bu fukki doomi aadama ak ñeent faatu ca juróom-benni téeméeri nit jëlee ci ay gaañu-gaañu mu ne ñeenti fan ci weeru ba am na ci koo xam ne ba léegi ma ngay faju ca ayre laaw kii di Mountagassi njiital APEX moo yónne woon ay nervim ñu ñëw attaqué siñu Sud Quotidien nañu moom Ousmane Sonko li mu ne woon charte non violence gi ñuy wax di ko signé foofee mu taxawoon fa la taxaw ba léegi nee na signéwul Les Échos nañu coalition bi mu bokk mu di yeewi askan wi ñoom it nee nañu signéwuñu démb bi ñuy daje ak ñi indi xalaatub charte non violence mu di cadre unitaire dialogue Sénégal masa am yépp Macky moo ci gën a mësee su koo dégg mu génn ñaawlu attaques yi ñuy def jëmee ci ñun waa Pastef te du ngeen ko ci mës dégg mu di ci wax ndax moom ci jëmi boppam moo ko santaane footballkatu Sénégal bii di Crépin Diatta ay mbiram record yéen nee nañu taq na suuf ne Coupe d'Afrique bi ñuy séntu du ca bokk match barrage yi Sénégal war def ngir mën bokkit ci Coupe du monde Qatar du ca mën bokk ab gaañu-gaañu bu mu am keroog moo ko plan yi Aliou Cissé yi dana jaxasoo